mbokk yi arbitre bi sifflé na drapeau saltige Fatou Ngom armée moo féete à gauche Hercule moo jàkkaarloog ñun armée ngemb bu weex wala bokk armée ngemb bu verte Hercule ngemb bu weex Hercule moo gën a gàtt ñu xeex ñoom ñaar combat bi xeex la ak bëre xeex ak bëre jàppante nañu ay baaraam ci kaw armée moo ñu wan ginnaaw ngeem lu vert attention Hercule mi ngi dóor Hercule moo gën a gàtt sànq gàttaan moo daan xaw ma na gàttaan bi a ah, soobu na dugg na yéeg na ci kawam ma ngi koy rokos rokos Hercule mi ngi rokos ay dana ko daan dana daanu ay waay Hercule ak armée mi ngi ci suuf astafurla waa armée bu leen ma mere war nañ ko ndomba war nañ ko ndomba war nañ ko ndomba tey mu dee tey mu maq suuf armée Hercule laay lay la laa lii nga am soo ko bàyyee li nga jàppoon ba bàyyi ko soo ko bàyyee di nga gis meew laa ilaaha illallah Hercule wër na ndomba armée armée ñaari app ci ginnaaw rotation rotation il n'a pas réussi il n'a pas il a oh, laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah tey jombi na ay waay def na yëfi armée waay waa armée kontaan nañu ci yow armée waa Grand Médine kontaan ci yow Hercule bu jam ñaajo waa jam ñaajo mere nañ la armée ak Hercule armée génn na si difficulté bi mu nekkoon Hercule waa armée bi kontaan nañ ci moom waaw waa muy militaire yeeg policier yi sapeur pompier ñëpp kontaan nañu. waxoon naa ko bëreetuñu. arbitre sifflé na waat ku nekk am na benn avertissement Hercule moo ñu wan kanam armée jugee ban camp nekk suñu ginnaaw camp wu Grand Médine la jugee. armée de daa attention Hercule jël na ko dafa diis attention Hercule daanu gaw oh pop pop pop pop oh colonel kontaan na ci yow commandant kontaan na si yow nee na la dama lay rey nee na ko dama lay rey déggal loolu déggal loolu déggal loolu eh dañ lay dàq dañ lay summi dañ lay summi Hercule coach baa ngi wax ak moom jógal Hercule nii la làmb nii la. kon ci bàyyi wax ak moom làmb noonu la daanu rek mbaa daan wala match nul